la magie du catch-cat fera face à la toute-puissance du catch et du sac. Temps temps temps yaa ñàkk fayda am na benn audio bi may war audio bi nga doon jëwee Pape Diouf ba koy saaga di saga Bougane Gueye Dany audio boobu noonu nga xam ne da nga doon woote téléphone man vocal bu enregistrement bu woon moom moom laa soxla moom laa soxla xaw ma fu ma ko mën a bi temps yow naka nga mën a tegee si télé mais seen télé boobu sax xam naa ne date bi li ko dese bu primé bëriwul parce que après 2024 télé bi du seen télé boobu après 2024 doxal man xaw ma ana CNRA xaw ma ana waa ana waa DIG ñi nga xamante ni ñoo convoqué woon Mame Makhtar Gueye Diamara ba ñu jëlee vidéo am dagg ko nga xamante ni moom ñëpp xam nañ ne victime la woon dañ ko moom dañoo daggoon vidéo am liñ ko waxuloon waxulul ko ko nga jël benn vidéo boo xamante ni ay doomi xaraam ñoo dagg vidéo boobu noonu jox la ko yow Tange bi nga xamante ni yow xamuñu góor nga wala jigéen nga wax dëgg yàlla ba léegi dañuy laaj Tange mi góor la wala jigéen la man xàmmiwuma ko man moom wax dëgg yàlla xàmmiwuma la ko xàmmiwuma la góor la wala jigéen parce que yenn saa yi may dégg Tange Ouzin Keita Tange nangam Tange ni mais Tange yaa ñàkk fayda doomi xaj bilaay walaay dama la naroon bloqué mais du ma la bloqué parce que bi nga waxee benn wax rek moo ma neex ba nga ne ay dooméram ñoo dëgg vidéo bi jox la ko heureusement gars yi xam na ni ko du man maa monté vidéo bi comme ni may fay nonu la gisee vidéo bi TikTok comme ni may jëlee seen yeneen vidéo yu bëri di ci wax chaque jour ba ma xëyee dimanche laa gis beneen vidéo ma xam ne muy intégralité ma xam ne ni ko dañoo dagg 10 secondes te incha allahu rabbi man yàlla def na sama bopp ni que ba ma dajalee ñaari vidéo yooyu sama émission prochaine dinaa taxaw ne leen vidéo bii ñu waxoon nii vidéo bii la dañ ko dagg mais merci beaucoup parce que la naroon bloqué normal la tontu mais saaga yi baal naa la garaawul amul solo ñun ñoo tànn métier bi lu nekk la ñuy dégg mais amul benn solo incha allahu rabbi mais yow en tant que professionnel yow nga ne professionnel nga en tant que nga ne professionnel nga ñu jox la benn vidéo yow xanaa nekkoo en jour xanaa nit ki kay bu nekkee en jour war ngaa war ngaa xam ne Ndeye Khady Ndiaye mi waxul yaako ko tey yaa ko tey bu fekkente nag dañ laa monté pour nga yàq deru Ousmane Sonko di ji xëy di ci gont yàq seen télé boobu seen télé bi moom délai bi yàggutul parce que tele boobu après nguuru Macky Sall buy daanu moog télé bi ñooy ànd daanuwaale te yow da ngay ñàkk sa crédibilité yëpp yow amatoo benn crédibilité amatoo benn crédibilité yow adduna bi yëpp ñu ngi naan mais temps mii nii wax dëgg yàlla mais kii kii nit la wala rab la wala lan la quoi. ah mais cuune gu métti googu noonu ah ridiculement boobu noonu arrière gu métti googu arrière arrière arrière ba mel ni ay taat mais quand même mais ça va soyez sérieux quoi. man waa bip waa bip ñu woon ma Makhtar Gueye Jamra ba ñu daggee vidéo boobu noonu jokko ko ko bip googu noonu man ñoom laay laaj waa bip. bi bi nga xam ne ñoo convoqué woon maam Makhtar gey Jamra ney Khady ndjay dafa la wara porte plainte ney Khady ndjay da la wara porte plainte ci lu leer parce que yow yow ma ney Khady ndjay nga waxloo ko muy ñëw di charger Ousmane Sonko yeen bu fekkee ne yéen xam nañ ñu nu mu demee ñu mu demee gis nga ñi monté vidéo bi jox la ko yow ya ko monté wala monté ko koku sama yónnee ko ci mais dama xam en tant que temps nga nan da ngay def people man vidéo audio bi nga doon jëwee Bougane Gueye Dany bobu la soxla bi nga doon jëmee Bougane Gueye Dany ak Pape Diouf. la magie du kàcc kàcc fera face à la toute puissance du kàcc et du sàcc.